salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum champion d'Afrique tey nag dama leen indil sama techno Spark 8C lu neex. Spark 8C bi nag mooy Spark bu gën a gën gën a yomb ci marché bi. écran bi nag mi ngi toll ci 6,6 pouces batterie bu dëgër këcc mi ngi toll ci 5000 mAh waaye yéen lii neexul mémoire bi nag. kenn du leen ko nettali sama gaay mi ngi toll si 64 giga loolu mooy fotowul selfil tiktokal defal lu la neex te du fees ram bi nag mi ngi toll si 4 giga xanaa de lii moo gaaw Spark 8C bi nag ñaari caméra la am si ginnaaw ak 13 mégapixels mooy Spark bi gën a yomb ci marché bi dem leen ngeen jëndi ko ci suñu boutique partenaire yëpp ak Spark 8C bi na xol yëpp feex nee naa ko réew mi boo fi nekkee di bañ métier ba moytul mën ngaa dem ci gaal waaye kii mburum yi ma jaay lu mu mburu lu mu moom it daal mbay sekki mi man ba moytul dinaa ko ba moom dama daan ko jox moo ci mburu mu bees mi waaye moom bala maa mën a jaay mburu rek bàyyi ba mu des yu wow yi koŋŋ koŋŋ mu ma koy soog a jox ni ngeen yoon la xoolal lii xoolal ni <laughs> mburu mi de mburu mi de ni mel <laughs> yàlla suñu borom dolli jàmm ci réew mi suñu borom ñu may nu koor jàmm ak salaam ci barke yonent ndax nag am di yow bu ñu fi nekkee bëgg fee tekkee dañuy ñaan jàmm di am ci réew mi loolay li war maaleykum eh, salaam aseli mawɗum kay barikalla kay imdilaay kay moytu baalal ma de baalal ma jéggal ma jéggal ma imdilaay kay tubaarikalla mais ba bu loolu lan moo am eh, am naa am naa nen omelette am na ndambe eh? am naa thon ah. am na spaghetti eh. am naa petit pois ay eh, yow kay ñàkkoo dara yow am lépp yow kay <laughs> fii karak mooy ndogu kaay ñàkkul dara alors lan nga looy laaj yow wan la omelette ama defaral la omelette tout de suite kay tout de suite tout mi mi wane na Maodoom kay baari kàlla kay ah yow kay arwaay wundu fi ñàkkul dara ah? nga bind li ngay jaay fii mu gën a seeka nag xam nga man damaa jàngul ah? damaa jàngul moo tax léeg-léeg bind mi bind mi day xaw a doy waar ah gisoo mais waa windu mu ne lan. ma ne waaw windu kay. ah yow mën ngaa bind mën naa kay kaaral kaaral ma kaaral am lii kere la. bindal bindal defal ci kaw bindal ci kaw. defal ci kaw omelette. ah omelette ah. defal nen. nen œuf bindal nen œuf de ngi ci maquillage bi. waaw comme client yi ñëwagul man xaaral <laughs> baax. waaw mhm. nga jigéen moom naturellement da baax. waaw tax bi may bi école bindoon naa ci poème bu neex a neex. ah bon wallaahi femme africaine. Ah. oh noir d'ébène. Ah. taille coca cola. nez de girafe. <laughs> nii nga def nii moo baax. jigéen dafay naturel. waaw bañ a jël sa yaram dëcc di produit yi mu koy rasal di ko di ko dépilimé te nii nga def boobu moom la kenn dugal ba nga xeesal de bul ma sa xeesal nii moo baax ah, ah, ah ma ah. jàpp ko fii rek nooy foofoo baax yow li nga bëgg loolu loolu waa ji naan fi nga wokk foofoo xasan delloo fa sab la lii sal <laughs> dama laa bëgg nag da nga raati góor ah waaw yow tamit firi ah loolu la saf te loolu dafa neex góor dafay di dafay firi góor dafay firi di lekk firiir waaw di ambiance waaw waaw waaw <laughs> man daal neex nga ma dinaa yégal benn mbir nag. Hmm. gis nga kële. si sa yow si yow la ne. ci man mi billa woo ma ñëw naan ma <laughs> ak sikkim mu ndaw bi <laughs> seen ndaw si moom nu may def ba jot ci. ma ne ko kii kii nag ay jaaykatu ku fable nii wàcc di xeeñ de. Eh, am classe. moo la yóbbante ci man. daf ma ko wax nii xam nga ne man góor guy tëdd di yeew laay bañ. waaye ku jug di liggéey rek bàyyi naa la xel. Ah. kii war naa mun a am ci moom dara de. pour Ndembe accompagné de petits pois avec mayonnaise 300 bu dee mburu mu ndaw def nga loolu. Eh. waaw kay. ñaata la koy defal. 300 ayi 300. ay 300 eh. ay ca defal 300 def nga 300. deux façons da ngay def café Touba ak meew plus mburu xool foo di 600 600 daf nga 600. ah ma jël ko këlam. waaw ko ragal lool de. nan la bëgg nga kii nii góor gu farax nii ma ne man góor gu maa ngi nii maa ngi nii. sa xel ci ma dama doon dàmp rek di xool ba xam fan laa mën a wéeri wéeri dagate. kon yow kenn yónnee yaa yónnee. yaa ngi xam nga ne yow laa bëgg. la gën a bëgg. nga waroon ndax man. xam nga ne ku mel ni yow laay wër xam nga douane buy set forod du yëkkati saag bi am forod da koy yoot ba déedéet déedéet da nga doon da nga doon pour yoot dama doon tànte rek waaye leen nag dinaa la ko wax uh-huh. bugguma amour bu sedd mukk amour sauvage bi booboo ma gënal xale bugguma góor bu nooy man amour man bon ma foog lii man lii nga bind lu mu nen ana nen nen mi ngi nii xoolal léegi wan léegi war ma ni wan ma fan omelette nen bi wan na fi ñu toll nag moom laa fourni ah bu ma fontoo rek bu ma yom nga jàng ah, nangam nangam sa lii lu kon lii lii mooy lan teel koolal da ngay jaay damay jënd nag man faaluma faaluma ñaam fay ñaamaani fay rokk nam xaalisam teel fi allez yow ma sama café man yow du ba café gaa am la Aïcha lii ngeen di def bari problème bay bëgg billaay ku lii mooy lan ma la defal lii moo tax réew muy daan dooleem di wut mu am ngeen di ko ba mën a fekk nga ñi nga ñëw nga ñëm nga lan mu tege fan ma ne lii sama bakkan bii laa ci gar sama taabal jii waaye yow <laughs> réew mi nit war na fee ma ne réew mi na fee tekkee fii ak wax àndu eh mais la per lan la yow ay nen ngay jaay lu ci sa yoon ok man ni du ma sa morom ah. maa ngi jégalu may jaay nen si yoon ci. benn benn nen. ma juróomi dërëmi kaa juróomi dërëmi ma ni waaye maa ko moom. ma ne fii ku fi ndogoo. ma ni korala bu njëkk ma day wekk. taabal ji lépp maa ko moom. may jaay ku fi ndogoo weer wi loo. ku di ngeen di jaay sa jàmbur. fii ku fi ndogoo. weer wi loo fi woor góor aj ba déwén góoru wat bang eh, eh, jigéenu mar daal non defal nag wut leen seen yëfi bopp samay pexe bu jógee ma fii na nga fiy jóg mani mani xoolal fa nga taxanee dama faa ma la yow kala kala may mani faalewu ma la xool ba mu neex la nga ni faale woo mani vaata faire foot eh, eh waaw kay Aliou waaw kay Podoro lan moo xew fii ñi xanaa waa ji gay mani bul wax yow lan la yow lu sa problème bul ñaan so waaye bul ko ko. lu la la. gis fee. su ñoo nekku ci waxal eh. fas lay dundee. dóoral ah, dóoral. lu xew fii tamit. lan la lan moo xew. ñàkk fay. sécurité bi la. mais am na la porte bi dama la lay wax nii de.